yaa ma waxal waxaluma jamono ji mi ngi def buzz fii ci biir réew mi kenn ku nekk yaa ngi tuumaal sa morom wala kenn ku nekk yaa ngi weddi ay tuuma yi la sa morom waxal ci ay plateau wala ci ab conférence de presse waaye jamono jile ah, diggante ah, Cheikh Bara Dolly ak kile di Pape Alé Niang ah, jamono jile nag ña ngay tontuwante gannaaw ba nga xamante ne ci ab émission confrontation bu kile di Mara ak Cheikh Bara Dolly daal di seqoon mu mel ni nag dañ fa yëkkati ay kàddu daal di koy jëmale ci kile di Pape Alé Niang gannaaw ba ñu ko arrêté woon na daal di koy euh, def mandat de dépôt ca euh, Sébikotane ba tax nag moom Pape Alé Niang ci ab page Facebook am la daal di bind Cheikh Bara euh, da waxu dëgg yili kàddu ya daal di yëkkati moom Pape Alé Niang ci ay kàddoom nee na j'ai été trois fois en prison nee na nag yow Bara Dolly musoo ma seet si tu ne m'as jamais euh, rendu visite muy ay kàddu yu Pape Alé Niang nee na nag euh, kile di Cheikh Bara Dolly xamul këram ba tax nag moom mi la sax di Pape Alé Niang nee na ki la di Cheikh Bara Dolly bi mu fi waxee wax ju ñaaw jooju Macky Sall ba ñu yóbbu ko rëbës muy jooy nee na ah, ñi la di garde ya fa nekk mën nañ ko ah, témoin ba tax nag moom mile di Pape Alé Niang nee na ah, dafa taxawoon témoin nañu libéré kile la di Cheikh Bara Dolly waaye nag gis na nag ne Cheikh Bara Dolly jamono jile da koy sosal di wër ci ay palato ba tax nag muy saaku daal nee na ko bàyyi mu toog ruqam bu mu ko ndax euh, kile di Pape Alé Niang nee na fen du béjaaw ba tax nag lépp loo xamante ne ay wax la rek euh, jëmale ci li nga xamante ne ci moom la te Cheikh dool yi wax ko nee na du ay kàddu yoo xamante ne rek dara du ci euh, dëgg mu mel ni nag jamono jile ca émission confrontation démb fala Cheikh Bara Dolly yëkkati woon kàddu ñu mel kile di Pape nag daal di koy tont daal di koy tontu daal di koy weddi ne fen du béjaaw lépp loo xamante ne rek moom mi di Cheikh dool yi wax na ko euh, du ay euh, dëgg xamul këram mosu faa ñëw ba mu nekkee ci kaso ba mosu kaa rendre visite waaye nag biñ ko jàppee moom Pape Alé xar na si tànk tubayam ba ñu daal di koy euh, bàyyi ndax jooyu métti ya mu nekkee woon foofii ca diwaanu Rëbës